ki nga xam ne mooy ab du Abdou Lahad Ndiaye médecéri ñu gën koo xam si Abdou Lahad Ndiaye soppu sëriñ du Lahad Mbacke sama kamaraaman soo bëggee xam li may def si biir fekk ma ci biir ndax mbir mi moom fii doon la moom ñoo ngi yëngu si njaay njaay mooy njaayu mercerie yi mm-hmm. loo xam ne lépp loo xam ne téer yi soxla nañ ko mm-hmm. ba di ko utiliser di ko def si seen i yére mu gën a rafet boo ñëwee fii da nga ko fi fekk ndax Abdou Ahad Mbacke borom daare kaamin suñu lépp moom la ndax lépp moom na ko jëmale tuddaleel ko ko mm-hmm. waaw fii nag boo ñëwee si diwaanu marché Guédé foo laaj place bi bàyyi laat mi siré après dinañ ko wan mhm. lii bouquet yi ngay gis nii waaw lii si xeetu bees bees yi la boo ko dañuy jaay gantir ba pare boo ñëwee ñu tegala ko lii ah tegal ko kon yow maanaam dan lay dan nit day ñëw jënd ba pare nga wëlbati ko tegal ko tegal ko ko waaye kon askan wi yéen a ko kii kay moom macha mooy bomb moom mooy bomb waaw mooy bomb mooy bomb ñun lépp lu bees loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko rek dañ koy dem wuta ji pour jox leen ko quoi ñoom ñoo tax ñuy sonn ñun ñoo leen fi bàyyi wax dëgg yàlla maa bëgg seen bopp sa yàlla tax ñooñu mënu ma leen a fay nag ma leen di sant di leen gërëm Touba diwaanu marché Guédé mhm. soo laaj ci place bi Balaat Mercier dina la ko wan 78 105 21 14 bu nekk Tigo bi tamit 76 752 57 48 incha allah rabi boo ñu si wooyee da nga ñu jot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 386 45 69 ña nga foofu ca Touba Daara Khoudous 9h ci suba la ñu ubbi ba 20h ci ngoon. mun ak transfert de argent muy wari joni joni ak ria képp koo xam ne si ne bëgg nga crédit yi dañuy jaay orange ak tigo ak expresso waa kër soxna astu jaxate daal di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassir mu yàgg fi lool te wér ak waa mint service ay baax bi dee nga dog koor gi man daal dëgg dëgg gone yi man gone yi man gone yi jaaxal nañ ma koor gi laa la wax ni mu tànge ah kenn ku ci nekk di ŋaaka ñepp fi nga toog ñoom ñuy dang dangi nii xool xoolal de eh, xoola xoola gone gi gone gi jóob xoola gone gi jóob ah moom daal moom daal bàyyam maam góor jóob rek la may jox xambo gam daan xambo di dama ne mi football daal ba léegi moo ne ci moom ah xoolal xoolal li xoolal li waaw dugalal dugalal waaw waaw waa kay jox ko jox joxal kii joxal kii kii nii kii waaw ah nii la jërëjëf jërëjëf ah waay joxal ma joxal ma gone gi njaay waay joxal gone gi njaay eh coup franc coup franc coup franc ah maaleykum salaam. lu may tijji. ah daal dëgg-dëgg man xam naa ni daal yéen daal kenn mënut a woor ci yéen rek ku woor ci yéen daal da ngeen koy sonal rek ah defa nga ni man danaa woor ba ndëgg ni nga nga yanu sa ak lii mu doon sax moom. comme si mooy lan maanaam daqaar. ak yéen ànd. kaani soble daqaar bineegar yëpp nga defe ngay loolu jaadu na war nga ma koo jox di ma ko fuqaloo comme si kenn tijjeetu ko demal wut euh, duggal fii ci kër gi nga indi paaka ma bënnal la ko mu def bën bën boo xam ne da ngay da man di nàmp demal dëgg daal man daal nurul sax sox nag lii daal doy na waar rek waaw waaw sax na waaw kay moo ma la ko foqalee bu soobee yàlla moom da ngay kii rek as mbën mbën soo xam ni da ngay fëgg rek ndox mi di ñëw waaye boo ko ubbee ñoom daqaar ñoom ñoo ci des ñoom ñëppay kafin teel ma kii ma wan la léegi comme bën naa ko nii nii rek ngay def nii nii boo defee nii rek. papa Ndaw mu ne. xanaa wóorul. naa kay. di yaa ma mu waay waa kii xas di mu yéen <laughs> ay mooy baadoola sëñ Bawde yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Bawde yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp yaay digle koor gi fii koñ bi boo xëyee kër koor ka fay waaye balaa bi parti